Mbin Ñaaxar Mbin Ñaaxar laay Ndofane Mbin Ñaaxar laa nga lay wër di wis say affaire laay bul ma wër wëral sa adversaire ambiance nga diggante tuuti bu soog a wala sadrere firke sadrere saɗir anañi ànd ak Mbine Niakhar anañi ànd ak Laye Ndofane ana waa kër Laye Ndofane xaar leen mu ñëw Mbine Niakhar baa ma commencé si yow xool day leen xool caméra yi. Labar. Mbir Ñaaxar nuyu nañ la. auzu billaahi mina seytaani rajiim. bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw ma sante yàlla julli si yonent bi di sant samay ñaari waajur di gërëm mooyu ma àndal fii di gërëm Ibrahima moo jox combat bi di gërëm sama waa gaal yéen ñëpp aw ma seen fay di gërëm waa Mbour bu baax kii maa ngi moom daf bu ma ko mu xam du lu ko benk ñeenkeewu ko loo wax ni barke Serigne Touba Mbacke bi ñaaxar ñëwee nga doole de. barki alxuraanu karim kii maa ko dàq bëree fuuf ma la wax. kii ñu damay compétir di dugg si lamb yi kii du bëre. kii mbëru combat nommé la mu xam guy matul këriñ. Eh, guy matul këriñ. guy matul këriñ. laay Ndofane siyaar naa la. waaw ah, ñoo ngi lay dëgg li saa waay wax. ah dégg naa ko na ma ko xamewul sa si da ngeen ya ya yéen ñaar mos ngeen bëre non kii maa ngi koy soog a gis tey parce que ñun bi lañ di bëre rek décembre ba léegi damay bëre mais nee na mbëru combat nommé nga mbëru combat nommé man maa ngi soog a premier combat nommé waaw ah, mbëru combat nommé boo ko gisee da koy xàmme man damaa compétir ba ñeer bu ma lay jàppee dama lay escale da ngaa noonu nii waaw ah. combat bi nag man li ma si wax bëriwul quoi parce que dañ maa nañ combat bu baax di garam Alpha samu dafa fa dem mu jëndal ma billet yu waa Ndianda jàpp nañ si combat bi dëgg dëggaani ko wër yëpp maa ngi nuyu waa Ndofane góor jigéen maa ngi daw olof ak séeréer ak pël ñëpp ñëpp ñu may jàppale si combat bi rek bëgg naa leen bu waaw lépp grand kii barki sëy dégg naa Mouhamed laa laajal ñii am na mbër yoo xamante ne fii nii barki alquraanu karim kii ñu may daan kii wa ci gën tuuti barke alxuraanu kay day caaxaan de. waaw barke juwaala gii juwaala gii bëri ay lamb. bayaalu bi bëri naa fi set ay combat laay am set combat. waaw set combat laay am booy Pape Diop mi man maa seede. barke Serigne Touba Mbacke kii gis musuma kaa gis muy bëri. bu ma ko jàppee combat du mat une minute. waaw kii di tapé nga naan ay bëri yow foo toj ma la jàppee nga xam ne lu ko benke ñeente wu ko de lu ko dama ko mokkal mbuur laa dëkk damaa mën a bëri xam nga laaj mi ñaaxar nee na li ko benke ñankewu ko ah kii li wax bëri li muy wax daa bëri mais man suba suba suba Joal maa ngi fi damay sàmm si conti continuer di compétir suba damay compétir si suba nañ fi daje avant combat bi ma defaral la balaa dara xew waaw ah. suba buñ daje woon si taawul bi dak buñ ma la joxee ko daw compétition laa dal mais yow xam nga ne yow ne ko yow yow yow li nga làq see at ëpp na 35 ans. nee na paa nee na moom day compétir si nee na moom day compétir si suwaal laal waate nee na moom daam ay nag day sàmmi sa wërsëg nga jël man sama wërsëg doo ma ko dëral ma ma koy lekkal sama bopp barki Serigne Touba Mbacke yow yow faalewu ma sax yow boobu xam naa xeeb nga ma de boo diggee Facebook gis gisal samay combat bu ma la jàppee nga xam ne ma too këriñ yow nga yow yow da ngaa sama kanam xam naa da nga maa xeeb mais di nga jooy barki Serigne Touba Mbacke ma jàppee nga xam ne dëgg la yow foo man soxlawuma la mbeul yi nek fi nan dama am combat mbër yi punkali taxaw fii nii punkali taxaw fi ni la soxla mais wu la sa way di nga beure ba ngeer dama compétir ba ngeer ni nga compétiré noonu laa compétiré boo bindee boo bëggee bo duggee TikTok bindal min ñaaxal rek nga gis samay combat nga uy xaaliss yow foo toj né nga duggu TikTok nga bindu min ñaaxal recherché mu ñew min ñaaxal dañ koy soga dégg te yow gën xamul la si ah. yow gën xamul la si laamu mhm. bu bisba baa bu ma la da nga xam ne sa morom mhm. billahi wallahi grand wala walaahi taalaahi mu ngi jooy déggoo ma de mu ngi jooy xola lu muy jooy bu yeboo mu jooy ko barki alxuraanu karim laa la waatal ni la am 3 millions moo am fii bu ma dul bëre yi su suñu waa kër suñu waa kër raxasoo ma naan ko te bu bëggee arbitre bu nee fii bu dugg see ma dugg si ñu dem taabal barki alxuraanu karim ma bàyyiloo ko suuf waaw kii da dërëm yow foo toj doo dërëm man fi ma toj tuti bor tuti ko bor xam ko. yow sa wal bop bu fekke sa mam samay loxo lay jaar do musa am sa aduna bu fekke sa mam si. yow bu fekkee góof nga soxla du si man sa waay yow do mbeur nga takk sa pettaaw naan dama man faale wu ma la man déggoolu ma li jënti wu ma la dama ki bu nekkon fala amna naa neuf combats déggoolu ma la neuf combat simple la am de de defet de combat do arène de victoire ki bu nekkon do dama koy wàccee barki Serigne Touba mbake mbir ñaaxar ñu yëngale laay. léegi yow ñun dañuy ñaan promoteur bi mu defal ñu ko dóor parce que man dóor moo ma arrangé. barke bi a a ana ana promoteur bi. Diak foo ana Diak wol ma Diak mu ñëw. ana ñu d'accord pour ñu def ko bëre dóor. ana ñu d'accord pour ñu def ko bëre dóor. billahi wallahi taala ñu ko bëri. ko boole. xeeb nga ma nag mais yaa ngi jooy yow bëre da doon ay punkal yoo sa bisab ci nii de buñ si meekoo jouru lamb ji di nga xam lépp dëgg la waaw ayca kon mbir ñaaxar ñu bàyyi la nga woote waaw kan ak kan ak kan ngay woo ñu jàpp si ko di gërëm ay Assane Gueye di gërëm sama waa gaal yi nii waaw di gërëm waa Mbour di gërëm sama waa équipe boo yi nga xam ne ñoo toog nii di gërëm Ibrahima di gërëm Ibrahima bu baax a baax a baax a baax di déggoo nga sa waay dalal rek dal leneen li ku ñuy connecté wu déggoo ma la di gërëm sama waa équipe bu baax a baax barki Seydina Mohamed drapeau chef de l'état dem naa ci na ma bu ma ko jàppee mu xam lépp dëgg la boo ma leeral korog laa demi final maa biróom bisin moo ma daan demi final lamb pont kii bu ma ko jàppee mu xam du dara kii punkal day la di di wax sama ticket day jeex tak ñëpp ay dugg foofu dix heures xool dix bi fees mbir ñaaxar ñan ngay woo wallaay Njaay la uh-huh. ma laay Ndofane waaw maa woo waa Ndofane yëpp di woo waa Janda waa Ngeeñeen waaw waa Papa Man dëkk yi dend ak Ndofane yëpp bi daal aw ma seen fay waaw jàpp nañ si combat yi jeex nañ bu yàgg tige yi jeex nañ bu yàgg waxatuñu ay waxu tige yi ñu li ñu liggéey taxu taxu taxul taxu taxu ñoo jóg moom li ma lu ma la bu nekkoon dóor barki alxuraanu karim bu nekkoon dóor dañuy xeex billaay wala taalaay doo dóoree doo doo dóoraat waaw yow soo waayee. waaw Anta Moussa Moussa yow yaay leen. moom mi ma bu kam fu ma na moom moo war a